إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk yu tedd yi téere bi ñu tiim dafa fas yéene ci laa biirante sunu kem kàttan tey ñaan yàlla defal nu ndimbal ak tawféexam ak làmmiñ wu leer moo di téereb sëriñ bu baax sëriñ bu tedd sëriñ boo xam ne mu arrix la muy kuy jàngat wàllu taarix rawatina taarixu sëriñ Tuuba radiallahu anhu la muy a cheikh muhammadil muhammadul amin Diop Dagana ginnaaw boo xam ne ñu ngi jóge ci téere boo xam ne moo ko def mu de irwa un nadim min asbi xubbil xadim ñu firi ko ci wolof ba mu jeex di yàlla nangu ko te jariñ ci mboolem jullit ñi rawante na ak taalibe yi ñu bëgg cee teg téereem bi di tudd al minaxul miskiya fi xawaari xawaariqil mbakkiya ñu dogal ngànt bu baax a baax ngir xam ne mag ñi moom léeg-léeg seeni wax wala seeni nettali léeg-léeg na ko war a déggee dana des waaye rek ñuy dimbali ko sunu borom di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg suñu kem kàttan tey dogal ngant ci mboolem waroom xam-xam yi rawatina waa kër sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci boppam lépp luñ ci juum wala baat buñ ci firi boo xam ne baat ba demewul noona wala maanaama ñu xam ne euh, as njaam su xeebu rek doon jéem te ñaan suñ borom boole ñu ci jariñ kon téere bii di alminaxul miskiya daf ciy nettali xarbaaxi sëriñ tuubaa ni mu ko tuddee fi xawaarixil mbakkiya daf ciy nettali yenn xarbaax ak yenn may wala yenn fatxu yoo xam ne sëñ tubaa boroomam daf ko ko defal fatx fatx mooy yàlla wan ko ay mbir yoo xam ne du ñëpp a koy gis du ñépp a ko gis euh, moom mii nag irwa un nadim moo ko jiitu moo tax doon na la ko junj ba ba muy nettali seede ya nga xam ne gaa yu baax yi ñu ngi ko doon seede la sëñ Tuubaa nee na la lu jëm ci naaru gànnaar yi day lu jëm ci seeni seede sama téere ba ñu tuddee alminaxul miskiya danaa ko ca def danaa ca def lu bare bare bare bari kon tey jii mi ngi nekk ñaar fukki fan ak juróom yaar ci weeru kooru 1442 muy tombeek fukki fan ci weeru mai 2021 tombeek ab altine seen mbokk Alioune Badara Ndiaye nekk ci leeral gi fa séene jële téere bi ci làkk wolof ci làkku arab ñu ngi jéggalu yóbbu ko ci làkk wolof ci tawfiix ak ndimbalal sunu borom subhaanahu wa taala di ñaan suñu borom fayal nu Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana radiallahu anhu bismillah waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana maa ngi nettali jële ci ay waxam nee na bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi tàmbalee sama téere bi ci turu yàlla saa boroom arrahmaani yàlla kiy aji xéewale xéewal yu matale yi arrahmaan arrahim yàlla ki aji xéewale xéewal yu jagooya wa yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala ca ka nga xamee ne laa nabiya déet benn ab yonant baadahoo di ñëw ginnaawam aw naka dana nu sàkku sa ndimbal dañ fiy nattale nattalu bu aw naka yaa mu aynu yow aji dimbale ji bi ko ci yow dong dong dong nastainu la ñuy sàkkoo dimbalikoo wala xawla te it déet pexe wala quwata déet kartan illa billahi ndara muy nekk ci yàlla al aliyi kay aji kawe al azim kay aji màgg mu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim royee ko alquran noonu la tàmbalee ngën gi mbindeef mi yàlla yónni woon muhammad sallallahu alayhi wa nee na jëpp jëf ju ngeen jëf te yaakaar ca dara ci barke bëgg ca lu baax bëgg yàlla jariñ leen ci dee leen ko ubbee bismillahi rahmaani rahim am na beneen riwaaya ne alhamdulillah nee na saa yoo xamee ne yaa ngi def jëf joo xam ne yaa ngi ci yaakaar aw yiw te tàmbali ko ak bismillah na la wóor na jëf ja day manqué barke mu ne maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu def ci moom as-salaatu yonent boobu nga xam ne ginnaaw bi ko yàlla yónnee yàlla dootul yónni ci ginnaawam kenn yàlla dootul soloo kenn kon képp ku ñëw ci ginnaaw yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàllaa ko yónni day kooko day moom ma ngay wax lu wuuteeg alquran ma ngay wax lu wuuteeg mboolem pas-pasu jullit ñi lu mel ni sëñ Tuubaa moom la tàmbali xasida ak raaya waaw xasida ak raaya wasalaatu wasalaam ala man la nabiya baada ki nga xam ne nabi mooy ku ñuy solo du ñëw ginnaaw ku ñuy solo nag bu ñëwut kon ku ñuy yónni waxatuñ ko ndax bala bala ñu laa mën a yónni dañ lay solo ba noppi kon li gën a gaaw mooy ñu dàq kuñ solo ndax buñ ne woon euh, laa rasul baada kon nit mën naa ñoo ne man duma rasul waaye nabi laa waaye buñ ne laa nabiya baada nag kon ku nekkut nabi waxaaluñu muy nekk rasul kon nit bu ñëwee ne yàllaa ma yónni bu ñu ko ah yàlla kat nee na woon ab yonantu du ñëw ab yonantu du ñëw yonantu du ñëw du ñëw waxaatama nabiin moo tëj yonante gi moo tëj soloo gi bu ne man kat du ma eh, man rasul laa du ma nabi dañ naa ko nit bala moo mën a nekk rasul faaw day nekk nabi ba noppi mënta nekk <laughs> mënta nekk moo tax moo gën a gaaw mu nekk awnaka yaa muiinu wa bika nastain suñ boroom noo ngi sàkku sa ndimbal bu natlubu awnaka bu awnaka maanaam nga xam ne maf'ulun bihi na boo xam ne danoo dagg fi'al ja ak fa'il ja al mooy yàlla mi nga xam ne moo yore ndimbal ku mu dimbale nga am ko ku mu ko xañ doo ko am mu ne ko ci yow rek lañuy ñuy sàkkoo dimbanikoo des na dimbanikoo sunu moroomi jaam ca kaw la leen yàlla defal ñu man ko amma la nga xam ne yàlla rek moo ko jegoo nag kooko ci yàlla rek lees koy lees koy sàkku amul kenn ku mën a pexe dara ba mu sotti walla mu wone dara ci kàttan ba loola sotti lu dul ne loola lépp day bàyyi koo ci yàlla saa borom subhanahu wa taala muy laa xawla wala quwata illa billahi al ali al azim loolu lépp day dellu ca borom bi subhanahu wa taala mu ne amma baadu ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci ngën gi mbindeef ñaanal ko fa haasihi lii ngay dégg fa haasihi mbind mii nga tiim bu dee da ngaa yoro téere bi alminaxu moo di mayya almiski ya nga xam ne ñooy ko jëkk gëttug misk yu neex may yu neex lool ba mel ni xetuk misk misku xeetu parfum la bu neex lool fil xawaarixi ca kiimtaan ya ca xar baaxe almbakkiya yay ko jug sëñ ba santoon mbàkke ñu koy dàkkandale ca waa mbàkke mu ne téere bi dañ ciy nettali may sëñ tubaa yoo xam ne dafa rëy neex lool ba bu doon xeetu parfum la ñu ne mooy parfum misk original nag lañ wax lañ ciy nettali mooy kiimaan ya ko yàlla defal ak karaama yi nga xam ne euh, sëñ boobu di Cheikh Ahmadou bàmba te bokk ci waa Mbàkke moom la ko yàlla defal loolu la ciy nettali Cheikh Mouhamadou nee na jamaatu dajale naa fiihaa ci téere bi maa loo xam ne saxaxtu dama ko wérlu min xawaarixin ci ay xotti baax wala boog min xawaarixi cheikhina al ci xar baaxi sëriñ Tuubaa radiyallahu yàlla na yàlla dooli ngërëmam taala yàlla mu koy ma anhu ci moom wa arda te mu gërëm loo an naa ci ñun bii ci moom nee na lii daal mooy li nga xam ne seet naa ko ba gis na lu wér la ci kiimaan yi nga xam ne suñu borom moo ko defal sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla dollee gërëm te yàlla dolli dolli ñoo taas ci barkeem wa kusuufaatihi ak ay kasfam kusuufaat jam'u la ca kasf wa karaamaatihi ak ay karaamaam maa la nga xam ne badaa lii feeñ badaa feeñ na lii di ma ñeel anaa man bi def ci saa bopp min ci moom wamaa ak la nga xam ne balaxa nii jot na ma xan siqatin jële ko ci ay ndër laay mooy ay nit ñu wóor kan damaa bàyyi nag maa lépp loo xam ne lam u saxe wérluwuma ko wéraluma ko wa in ishtahara ak doonte loola siiw na wa am kana te jàppandi woon na ma nettali ko tamit nag raajeen mbir mu may aji yaakaare min na laa ci yàlla tabaaraka barkeel na wa taala ca kaw an yajxalaha mu def téere bii amalan muy jëf xaalisan ju sell li ci li wajhihil karim ngir jëmmam ju tedd ja nee na téere bii kat dama cee dajale kiimaani sëriñ tuubaa ak ay ay kusuufaatam yooyu yi ko yi ko yàlla wuññil mu di ko gis yàlla xamal ko ko tam nekk lu sori wala nekk lu ñëwagut ak ay karaama yi ko yàlla defal dama cee dajale li nga xam ne tànn naa ko ba gis na lu wér la ma dajale ko loolu nag am na ci loo xam ne man sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mii maa ko xamal saa bopp mooy maa ko séq ak sëñ bi ba gis ko maa ko dund ba xam ne lii kat am na am na ci loo xam ne tamit dañ ma ko nettali am na ci loo xam ne dañ ma koo nettali waaye net dañ ma koo nettali waaye ñama nettali de ay nit lañ ñoo xam ne ay nit ñu wóor lañ ay siqaat lañu siqaat boo jàng xadiis euh, da ko da ko dégg mooy ñoo xam ne seet nañ ba gis nañ ñii wax lu dul noona wala nettali lu leen wóorut loola bokkul ci seen melo bokkul ci seen jikko maa ngi nag wax ne yi nga xam ne nag xam naa ko walla ñu nettali ma ko te loola wérluwuma ko ak doonte siiw na nit ñi di ko nettali nga xam ne mënoon naa koo indi fii sax loola dama koo far bàyyi loola indiwuma ko kon dama tànn li wér bàyyi li wérut ni euh, al imaam al buxaari yu def nga xam ne xadiis yi bari na waaye mu moom mu segg ca la nga xam ne wérlu na ko ba gis na lii wér na ci ay siqaat la ko jële yu wér a wér a wér andi ay charte yu diis a diis diis loola sëñ Mouhamed Lamine Diop dagan def fii ci histoire sëñ Touba radiyallahu anhu wala boog ci ay mayam maa ngi yaakaar ci suñu boroom mu na mu liggéey bi mu defal ma ko liggéey bu sell boo xam ne mu koy def ngir jëmmam ja moom suñu borom subhanahu wa taala wa an takkoona ak ba dana nekk tamit moom téere bi sababan di sabab li mawaddati cheikhina ñeel sopp sunu sëriñ li kulli man képp ci ña nga xam ne jahiloo dañoo réere am roxoo mbiram min muslimi zamani naa ci julliti suñu jamono ji wala aatiina ak way dikk ña baadanaa suna ginnaaw wa an tasdaada ak ba mu dolli bihaa ci moom téere bi mahabbatu mu muhibbihi soppuk way soppam xubban ak sopp koo xam ne yukk si buhum da leeni fàggul indallahi fa yàlla ridwaanahu ngërëm ay ngërëmam al akbar ya gën a mage wante maa ngi ñaanit yàlla na nekk moom téere bi sababan di sabab li ridaihi ñeel ak gërëm ma nii walis ñu fi jamii araad yi ci mboolem sunu way gaar wa agraad yi ak sunuy xemmemteef wa anfaas ak sunuy noy wa ridaa ak sama gërëm anhu walis ko moom wa an akoon ak ba may nekk bihaa ci sababu eh, alminahul miske bi mim man di bokk ca ña nga xam ne radiyallahu anhum yàlla def leen a gërëm wa radu anhu te ñoom ñu gërëm yàlla loolu nag yàlla na am ilaa duxaliya ba ba may ba ci sama tab bi aljannata ajjana allati ajjana ja nga xam ne waxida diggees na ko al muttaqoon way ragal ña yàlla wa fiha ak ci biir àjjana lool nag bu mu ànd ak bilaa aafatin ci benn gàkk-gàkk wala kadrin du caaginu nëx-nëx wala gururin du caaginu ak waru wala stidrajin du caaginu genn xeetu jayu abadan ba faaw ndeysaan awnaka dananu sàkku sa ndimbal yaa yow aji dimbalee ji way bi ko ci yow képp na saynu la ñuy dimbadikoo yaa fattaaxu woo naa la yow yàlla muy ubbeekat bi ndax day waaj a way ku yàlla ubbilut doo mën a doo mën a doo mën a dajale doo mën a taarif yaa alimu yow aji xam ji kon yaa fattaaxu yow mi tudd fattaaxu ubbi ma yaa alimu yow yàlla mi nga xam ne yow dong yaa xam xamal ma ndax ma mën a def li may maanaam lii lii ma jublu dafa bi maa ngi ñaan suñu boroom yàlla nekk sababu jullit ñi nga xam ne dañoo réere mbiri sëñ Touba ci jamono jii may taalife ak jullit ña nga xam ne xal seet nañoo ñëw ci ginnaaw muy ñu mel ne ñun ñii ak mboolem ñi ñëwaat buñ jàngee téere bi yàlla nañ ci dolli ko ak bëgg sëñ Touba xam mbiri sëñ Touba bu wér a bu fekkee dañ leen ci nettali nu dul noonu wala ñu njorte woon sañ tubaa nu dul noonu buñ jàngee téere bi loolu na yàlla nekk sawoog ñu sopp sañ Touba jóge ci réer gañ ko réere woon maa ngi ñaan yow yàlla téere bi ñi nga xam ne ñoom jotoon nañoo sopp sëñ tubaa ba noppi ñoom moom yàlla nga leen dolli ak sopp sopp goo xam ne da ci mën a jaare ba defal leen ci ay ngërëm ya gën a màgg maa ngi ñaani téere bi yàlla na nekk ngërëm loo xam ne euh, moom suñu boroom ak moom sëñ tubaa ñu ci gërëm ci mboolem suñuy yëngatu ak sunuy suñuy xeymem téef ak sunu yëngu ak sunu dal moom mu ñaan it ne yàlla na ko ci sëñ tubaa gërëm wala yàlla na ko ci yàlla gërëm yàlla na ko ci yàlla ci am ngërëmal yàlla ak ngërëmal sëñ tubaa mu ne suñ boroom it maa ngi ñaan ci sawuk téere bii ma def ci sa waliyu bi yàlla nag ma boole ci ñi nga wax ci alxuraan ne dag leen a gërëm te ñoom ñu gërëm la te moo di saxaaba yi ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla ngërëm loolu nag bu mu dakk mukk ba keroog ñu dugg àjjana ca biir àjjana loolu nag àjjana ñi nga xam ne yàlla moo ko dig ñi ragal yàlla ne ñoom rek ñoo ci dugg ilal muttaquun da koo digg ñi ragal yàlla lii nag bu mu ànd ak benn gàkk-gàkk wala tilim tilim walla woru wala ak jayu mukk mukk mukk mukk suñu borom daal yow daal yaay kii dimbalee tayit noo ngi sàkku sa ndimbal te ci yow rek nag lañuy sàkkoo ndimbal yow mi nga xam ne yaay alfattaaxu yàlla na ñu ubbi bañ mën a xam li ñuy way yow mi alimu yàlla na ñu xamal ci sa xam boobu bañ mën a xam liñ jubloo taalif bismillahi tey mooy sunu ñaareelu jotaay ci sunu téere bi di alminahul miskiya fi lxawaariqi l mbakkiya li cheikh Mouhamad al Amin Diop ad daganiyi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu a cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana nee na wa min kushufaatihi bokk na ci ay kashfoom kashfu waxoon nañ ko démb kashfu ni alxuraan fa kachafna anka xitaaka fa basaruka al yawma xadid mooy wuññi bokk na ci wuññi di ko yàlla wuññil mbir yi moom sëñ Tuubaa annahu naka moom radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla gërëm arsala ilayya daf yónnee ci man ngir di sàkku arsala ilayya dafa yónnee ci man zaata yawmin jëmmi benn bis bu ayda solaati subuxi ci ginnaawus jullik suba maanaam biñ jullee suba yëggut rek mu yónnee woolu ma bu ayda buñ ko waxee rek mooy eh, dafa yëggut wakaanata nekkoon na moom sëñ Tuubaa min aadatihi di bokk ci aadaam kasiiran lu bari lool an yastaqri ani mu may jàngloo an yastaqri ani mu may jàngloo baada xasaidihi lenn ci ay xasiidaam fi dalika al ca woowee waxtu faataytuhoo ma dikkal ko ma ñëw a xaalatin ci aw melo woo xam ne laa taliixu du yella wala tunaasibu te du méngoonteeg du jaadoonteeg al maqaama barab ba wala situation ba falamma alima ba mu xamee moom sëriñ bi bi ityaani ci sama ñëw wa kaana tey te te nag nekkoon na min warai min warai xijaabi nekk ci ginnaaw kiiraay xijaab mooy ci ginnaaw miir bi wala ci ginnaaw sàkket bi wala ci ginnaaw seng bi maanaam daal fi ma nekk ak fi mu nekk bokkuñ am na xijaab xijaab benn baaraas bu dox suñ diggante sharaa tàmbali na moom sëriñ bi olof da koy firee xaraf na mooy tàmbali na rek yataxarraku di yëngatu wa yuxarriku tamit yëngal xataa xon na ba njott sax annaasu nit ñi nit ñi ko doon xaar ne annahoo na ko moom sëriñ bi de aatin aji dikk la wa huwa te moom kat xayru aatin du aji ñëw ilaa an toola ba mu yàgg al amru mbir mi wakaadata xaw annaasu nit ñi yamalluuna di yokkat xaala mu daal ne insarifu aca dem leen in sarifoo wëlbatiku leen mooy dem leen suduurul axraari dënni gor yi xubuurul asraari mooy bàmmeeli secret yi cheikh mouhamadul ami Diop dagana nettalim bi njëkk nee na sëriñ bi radiallahu anhu dafa masa a yónnee woolu ma ginnaaw buñ sëlmalee suba ba ci kanam tuuti rek te fekk naka jekk loolu bokkoon na ci aadaam waxtu woow yi daf ma daan yónnee su ma ñëwee mu di ma jàngloo lenn ci ay xasiidaam sëñ bi daf daan jànglu xasiida yi lu bare bare bare bari wares naa fonk xasiida yi lool wares naa seet tamit niñ koy jànge muy dëppoo ak yoon lu ci nit man ci wàllu ya ci wàllu xaraf yi ñu bañ koo damm ndax arab la te arab saa yoo ko dammee rek wax ji day daal di soppiku mën naa firi lu bokk ak li nga jort bi ma ñëwee yàlla dogal nag ma ñëw ci melokaan woo xam ne moom wax dëgg yàlla jaaduwut maanaam ñëw daal ci melokaan woo xam ne ak barab ba ak xëy na li may defloo muy jàng xasiide ak lu ak lu mel noona ñëwee naa daal ci melokaan woo xam ne moom gis naa ne njuumte la waruma woon ñëwee noona sëñ moom la muy jóob daga nag leerulut nu mu ñëwee waaye moom ci bopp moo saxal ne ñëw na ci melokaan woo xam ne daal méngoowut ak euh, kuy wuy si sëñ Tuubaa rawatina ku ñu war a jàngaloo xasiida ni mu war a mel moom melut moo xam nag loolu ci ay yére la wala ci lu mën a doon nee na mu mel ne sëñ bi daa xam loolu te sëñ bi jëkkëru wut ak moom ma ngi ca ginnaaw euh, am am na lu dox seen diggante am miir wala euh, sàkket wala seng wala lu man a doon sëriñ moom gisuma waaye mooy yëg na ne ñëw naa tey dafa mel ne sëñ bi dafa xam ne li ma war a def loo mooy di ma jàngaloo xasida day wala yitte ji mu am ci man ak barab bu sell boobee ma ñëw dama comporté woo comportement boo xam ne jaaduwut ca barab booba nee nañ buñ toogee ba mu yàgg sëñ bi day jekk yëngutu mel ne kuy génn nga kuy waaj a génn kilifa kuy waaj a génn day yëngutu mel ni day yëglu ne mi ngi waaj a génn ba nit ñi jàpp ne mi ngi génn waaye ñëw du génn bu toogaay ba ci kanam mu yëngatu mel ne day waaj a génn waaye du génn nee na ba nit ñi sax eh, xaw a yokkat ci loolu maanaam eh, heure bu yaakaaree ne day génn ndax mi ngi yëngatu du génn ba nit ñi xaw a kii seen yaakaar di xaw a tas na sëñ bi daal boo wëtandi ko du génn nee na mu jekk-jekk daa ne mën ngeen a dem de aca dem leen aca na ñëpp dem na ñëpp dem ndax daal di indi suduurul ahraari qubuurul asraar loolu wax la ju yàgg boo dem boo da nga ci da ko ci fekk nga ne fi ne lii boo ko juutaloon tamit wax ji day jubaat fi ne boo ne woon qubuurul asraar yi nga ne ca mujj nga tàmbalee suduurul ahraari ba tey day nekk benn suduurul ahraari dënni gor yi qubuurul asraar yi mooy bàmmeelub sekkare yi maanaam secret bépp secret boo xam ne da bañ mu seen lépp lu baax lépp lu seel loo xam dañ ko war a denc denc bu wóor kooko jox ko gor yi gor yi bu ñu ko ba denc seen dënn danañ ko sàmm nañ ko war a sàmmoo tey du senn ni nga xam ne bàmmeel noonu lay sàmmee kañ ca denc nga ne nit xasee ba denc bàmmeel la moom bàmmeel du siiwal dara kenn du naan dugg na bàmmeel ba war na ma lii ca kañ fa denc déedéet nee na nag secret yooyu nga xam ne dangaa bañ muy senn da nga ko bëgg a denc denc bu wóor kooku danga koy def ci dënn gor yi fekkal as gor boo ko waxee sa secret kooku mu du seen loolu nag wute ak jamono jii nga xam ne tabarkàlla mhm. dafa mel ne fii li nga fiy déggee mooy lan mooy daa bëgg wax ne lu baax lu sell kat loola faw ndab lañ koy def dees koy seetaat mu mel ne kon daa bëgg xamal xamal sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ne ko sa comportement bii nga comporté woo yëllawut ak barab bi yëllawut it ak li ma lay waaj a def loo ndeysaan euh, benn euh, mbokk ci naaru gànnaar yi jàngeen ci irwaaw nadim bi ñu weesu biñ ne ko lu tax yow li ngay siyaare sëñ Tuubaa daa bariwut mu ne sëñ Tuubaa kat ku fay dem da ngaa war a sell da ngaa war a defaru ba sab xol nga yëg ne dara ci àdduna nekku ca nga fay doog a dem nitu yàlla la koo xam ne léppam leer la léppam yiw la kon nag képp ko am dara ci taq-taq waroo koo jege waroo faa dem nee na looloo tax man du ma fa faral di dem ndax bala ma faa dem rek damay defoor ba gis ne man mii kat macha allah may doo a dem gis nga nee na fan saraftu ma daal di wàññiku ma wëlbatiku xajilan di aji am gàcce lool wajilan di aji jàq xajilan mbir mu may aji am kersa wajilan di aji jàq li maa ngir li nga xam ne alimtu xam naa ko wa anaata man kat astaghfirullah maa ngi jéggalu yàlla ala tilkal xaalati ci woo wala melo ma daa dëpp nag daa di rus lool xaw a jàq lool lan lii de yàlla bu ci dara fekk sax wax dëgg yàlla sëriñ bi waruma koon wuyoo see nii maa ngi jéggalu yàlla nag ci situation boobu melowoo ma melokaanoo woon wa nazamtu ma daa di way tilkal xuruuf yooyee xaraf fii xasidatin ci xasida goo xam ne matlawaa tàmbalikaay ba moo di salaaxu kullika maxal islaaxi qad xama xibbaka an tolaaxi daruka an zawil mafasidil fasaad qaada ilayka xubba mubghidi fasaad nee na ma daal jël arafu yooyu sëñ Tuubaa wax muy sudurul ahraari quburul asraar arafu ci nekk ma def ci aw bayit xasida googu ma nga tàmbalee ci salaaxu kullika yéwénug sa lépp yow sëñ Tuubaa defarug sa lépp maxal islaahi ànd ak defar ga xadd xamaya aar nañu ñoom ñaar xibbaka sa soppi bii di mu Muhammad lim jo dagana xam tolaaxi walis ak yàq kon akuk yàqu dar oka sag jeñ an sawil mafasidi walis worom yàq ya alfasada yàq ga xaada boo mën na ileeke jëme ci yow xubba mu bëgg di fasaad sopp ña nga xam ne dañoo bañ ak yàq akuk yàqu dafa jël xësit dafa jël baat yi yi ko sëñ Tubaa waxee woon suduurul axraari xubuurul asam mu def ca ak xasida nee na xasida fii laa ko tàmbalee dana sëñ Tubaa sag defar ak sag defaru ni nga xam ne sa lépp dafa yéwén defaru dara lu nax amu ca ak sag defar yow nga xam ne képp koo xam mbiram dafa nëx dafa yàqu defar nga koy defar ba ba mujj yéwén ci coobare suñ borom ñaar yooyu day moo aar sa soppe bii di Mouhamed Lamine Diop Dagana ba moom bokkul ci ñu yàqu ak ñu yàqu tolaax ab toolix dañ koy dend rek ab saalix ab saalix mooy lan ku yéwén euh, ku yéwénal ab toolix mooy safaan ba mooy kuy yàqu ku yàqute yàq yàqe nañ ci yàlla musal ni say ni sa mbir jage ba nag nga boole ci ku ay mbiram jëgut bu ñëwee nga jagal ko fóot ko ba mu set ñaar yooyu day ñoo defar sa soppe bii ba mu bokk ci ñi yàqu te yàqule lépp loo xam ne day yàq walla mu yàqu dàq gi nga koy dàq ba du mën a yàqal kenn loola day moo tax képp koo xam ne dafa bañ ak yàq rek da nga koo bëgg yow sëñ Tuubaa képp koo xam ne dafa ànd dafa bokk ak yow bëgg-bëgg mooy bëggut ak yàq akuk yàqu kookee day da koy bëgg te la la ko may mooy bañ lépp loo xam ne dafa dafa yéwénul rek moo la ko may ila axiril xuruuf ba ci mujjug xaraf ya laa ko waaye ci nekk ma def ci aw bayit waa araytuhoo ko moom daal xasiida gi ma wan Sëñ Tuubaa xasiida gi fa taajaba kasiiran mu yéemu lool summa maridtu topp ma tawat baada zalika ci ginnaaw loolee maradan tawat yoo xam ne shadidan ju tar la summa lamma ufitu topp ba ma wéree ba ma wéree ba nga xam ne jàmmalees na ma mooy ba ma wéree wa laqituhu ma dajeek sëriñ bi xaala mu ne ma innal marada naka tawat jooju daloon la bi sababi tilkal xasidati mi ngi tukkee ci sababu xasida goo gi nga defoon fas daada mu daal di dolli ko ne yaqiin yi sama yaqiin walhamdulillahi alayhi maa ngi sant yàlla ci loola ndeysaan nee na ba ma defee xasida ba ak dama ko ko won ne ko de man tuub naa tuub gu sell ci loolee nga xam ne moo ma daloon eh, won ko sëriñ bi sëriñ moom it bég ca lool kontaan ca ginnaaw loolu man sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ma tawat tawat ju metti lool waaye ba ma demee ba wér nag ba ñëwaat ci sëñ bi sëñ bi ne ma sa tawat jooju day sa xasida goog yi nga defoon eh, bokk na ci li ko waral wala bokk moo ko waral moo ko waral nee na loolu nag ma daal di sant yàlla kon xëy na jàpp ne njuumte loolu ma defoon tuub naa ko te tuub ga sell na gën a am yaqiin gën a wóolu gën a yëg ne daal man ne yaquuma waaw gën a wóolu ne man kat defaroon naa xëy na loolu njuumte la woon mbirum seytaane rek la woon ma sant yàlla loolu ca loola kon li ñu ci bëgg a nettali rek fii mooy sëriñ bi kasu gi ko yàlla defal ci bi ma ñëwee ci anam boo xam ne yëlloowut ak barab ba ak la may waaj a defloo xam gi mu ko xam ba tax sax génnut ci mbooloo mi ba tax génnut ci mbooloo mi te kat booba gisuma booba gisuma wamin wamin bokk na ca ay xar moom sëñ tubaa an nii naka man jalasu toogoon naa fil maktabi fil maktabati ca bindukaay ba zaata yow min jëmmi benn bis rek ana man wa asxaabi ak saay mbokki taalibe saata matarin ci waxtu wu taw wa ana fekk man atafakkaru maa ngi xalaat fii axwaalil xabri ci mbirum bàmmeel wa jawaabil munkarayni ak tontub ñaari malaaka yooyu di laaj ci bàmmeel munkar ak nakiir ilaa an xultu ba ma wax fii nafsi ci sama xel rek ab yaatan ay bayit azkuruhuma yoo xam ne maa ngi leen di tudd fiihima ci fiihaa ci moom fa baynama ana bi nga xamee ne man kazalika maa ngi ci diggante boobu is amul lu dul rek aqbala mu daal di dëgmal sax suñ jëmm min jihati cheikhi tukkee ci wàllu sëriñ bi musri'an ma ngay aje gaaw nag fii asnaa il matari ci biir taw bi di xuus waxaala la naa mën nañu a cheikhu sëriñ bi day yuridu minkum bëgg na ci yéen dan kenn sëñ bi nee na na kenn ñëw fa xaama daal di jóg ëllësee ka nga xam ne yelihi moo ko gënoon a jege fala maa wasala ba ma àggee moom waajoo ji mbokkum taalib moom ila ci sëriñ ba maddalahoo sëriñ bi da koo taalal xasidatan ak xasida maktubatan boo xam dañ ko bind fil xiini ci saasa la ko mu ne ko ishab demal biha ànd ak xasida gi ila asxaabika yóbbu ko ci say mbokki taalibe bu nga bu ngeen àggee takkuuna dana nekk lëkkum di leen ñeel jawaabal munkarayni tontub ñaari malaaka ya ndeysaan nee bokk na ci kiimaani sëñ Touba benn bis damaa toogoon ca bindukaay ba ñiy bind maag samay mbokki taalibe fekk mi ngi taw mi ngi taw lëndam lool ma taamal xalaat nag naan xoolal rek ni mu lëndamee nii man de xawma sax bu ñu dugalee ci bàmmeel nu mu war a demee ndax ñi ngi ci àdduna ñi ngi yor mi ngi yaatu lool waaye mi ngi lëndam ak taw bi ni mel eh, lii daal xam naa ni ña nekk ca bàmmeel danañ tuumuranke lool ndeysaan ak suñ jógee ci bàmmeel moom malaaka yi fay laaj nu ñuy góorgóoru ba tontu leen ak malaaka yi nañu ragloo man di xalaat ci mbirum bàmmeel nee na ba mujj sax may may di wax ay bayit ci sama xel waaw di wax ay bayit ay bayit ci sama xel bayit woow yi dana ci euh, dana ko indi ci kanam nee na bi ma tàmbalee di xalaat loolu rek mu mel ne sëñ bi yàlla da koo xamal li ma doon xalaat nes tuuti ñu gis ku jógee ci sëriñ ba di xuus ci taw bi bi mu ñëwee daane sëñ bi neen na kenn ci yéen ñëw ka ka gënoon a jege daal di génn daa di dem ànd ak moom ba mu demee rek sëñ bi jox ko xasiida goo xam ne ma ngi ko bind ca saasa ne ko yóbbu ko ca mbokki taalibe yi ne leen buñ ko mokkalee rek mooy nekk seen tontul ñaari malaaka nga ne kon day mel ne day tontu sëñ Mouhamed Leye Diop Dagana mii te gis nga ci xelam dong la ko wax waxu ko woon sax ci te même bu ko waxoon ci kaw it sëñ bi moom nekku fa ndeysaan wa nasul xasiidati yaqub xasiida gi murattabatun luñ toftale la min xuruufi min al lawxil foofu xasiida gi sëñ bi mu ngi ko tënkee min al lawxil mahfuus nga xam ne day jël miim gi def ci bayit jël nuun gi def ci bayit euh, noonu la koy toppe ba min al lawxi al maxfuus min al lawxi mu nga tukkee ca euh, alluwa ja al maxfuus jade ji ñu watt fa suñu borom subhanahu wa taala xasida gi firoon nañ ko ca euh, yenn xasida yi ñu doon leeral ci làkk wolof ñuy leeral nag ne xasida yi firi gi ñu koy firi di ko jéem a wax ci wolof ñun jublu ñoo wax li ci sëñ bi jublu dëgg-dëgg baati araabi rek ak maanaam mañ ca déggee loolu rek lañuy ñuy jéem a leeral lu ci jubut yàlla na suñu borom jéggal na ko xasida gi guddut sëñ bi dana bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallama taslima min allawxi almahfuz daade minni liman lahu alwujudu walqidam wa shukurun wa taqabbal alxidam minni bàyyikoo na ci man ahmadu bamba liman jëm ci buur ba nga xamee ni lëxoo ñeel na ko al wujudu ak am gu leer naññi wala xidamu ak jiitu mooy moo jiitu lépp te tàmbaliwul fenn lan moo jóge ci yow jëm ca jëm yàlla mu ne xam dul ak cant wa sukurun ak ngërëm wa taqabbala te nangu na moom yàlla alxidama eh, saab liggéey mboolem lu ma ko liggéeyal rek nangu na ko nafaxa jariñ na dul baqaay yàlla kay borom des ga wal muxaalafa ak wuutenteeg mbindeef yi kan la jariñ al abda jaamba sal qadima kay wala boog al abda jaamba saabii al qadima tey liggéeykat ba laa muxaalafa te déet ak wuute déet ak wuutente mu ne suñ borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy borom wujud mooy ko am la maanaam mele suñ borom lay lim fii al wujud mooy yàlla am na al xidamu mooy yàlla moo jiitu lépp te tàmbaliwul fenn dul baqaay yàlla dafay des ba faaw amul àpp al muxaalafa mooy yàlla moo bind lépp te lépp lu mu bind wuute wuutente naag loola maanaam nuroo wuut ak ay mbindeefam waaw laysa ka mislihi suñ borom borom al baqa ak borom de jariñ na jaamam bii di Ahmadou Bamba tey liggéeykatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ila alladi alqiyaamu nafsi wajab wasaltu ixlaasi wa jaada bi ajab da nga jël xàbb wu mujj wi wasaltu jokkale naa àggale naa ixlaas yi samak sellal ilal li si jëm ca buur ba nga xamee ne euh, wajaba war na alxiyaamu bi nafsi alxiyaam bi nafsi mooy taxaw ci ay mbiri boppam boo ko dañu melee suñ borom mooy alxiyaamu bi nafsi mooy daal soxlawul ci mbindeef dara yàlla moo bind mbindeef yépp waaye nekkul na da leen bind ngir ñu dimbali ko malaaka yi ngay dégg ñu naan da leen def loo lii nàngam loola daf ñuy jàngal rek waaye nekkul ne moom daa soxla ay kii ñu ko war a dimbali comme ni ko buuri adduna yi soxlaa déedéet alxiyaamu alxiyaamu bi nafsi wa xaaimun bi nafsihi mooy doyloon na mbiri boppam mën naa defar lépp boppam suñ borom moom yi nga xam nag mën naa defar lépp boppam suñ tubaa nee na sama sellal yépp jëme naa ko ci moom waaye ba ma ko defee tamit wa jaada dafa tabe mooy daf maa may bi ajab ci kiimaan bi ajab ci mbir mu yéeme may gu yéeme lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin alamin yàlla kii borom bindee fi al waxda mooy ak wéet waxad kafaani te fegal na ma kulla dorin bépp loolu lor waxdahoo moom dong lahoo ñeel na yàlla sukuur yi sama cant ak dahra diiru jamono bi nafsiya ca li ñu tuddee an nafsiya te moo di al wujud wa kaana te mu nekk lii ñeel ma bil bushri ca mbigi al mardiya yëre yi ñu gërëm ne suñ borom mi nga xam ne moo bind mbindeef yépp bokk na ci ay meloom mooy al waxdaaniya mooy ak kenn ak akuk wéet suñ borom rek mooy kenn ki nga xam ne moo mat a moom rek moo kenn ndax boo xoolee ci aw mel ay meloom kenn la ca doo gis benn meloo suñ borom kenn di ko di ko nuroog moom euh, moo kenn ci ay jëfam suñ borom li muy jëf moom dong moo ko mën a jëf moo kenn tamit ci jëmmam kenn doon suñ borom nuróo nag dara wax na ko léegi ci ginnaaw al muxaalafa lii ku ko dajale kooka la ñuy tudde moom kenn la mboolem lii ne ku ko mënta dajale doo kenn lu la yàlla may may may doo mën a nekk kenn mukk doo mën a nekk kenn mën ngaa rawas ak maas mën nga leen a gën mën ngeen def nangam masala yonent bi sallallahu alayhi wa kenn du ko kennal donte moo raw ñépp moo leen kii moo leen def nangam dëgg la waaye nag teewut yonent bi lu mu ñu gën gën gën nit la ñuy nit foofu moom ñoo fi bokk yem mënoo ci dara nit la ñuy nit qul innama ana basharum mislukum nit la ñuy nit lam ñu gën a nag mooy waxaa ila ak yeneen gën a waaye teewut nit la kon boo nee nit la ne ñi ci des ay nit lañ rek mu daal di mat kon foofu moom wéetu fi kenn kon du kenn kenn nag day doon koo xam ne moom da koy tudd maanaam doo mën a tudd dara mu yem ca kenn loo mën a tudd daal doone lii moom moom moom ñëpp ñoo ci bokk yem ak doonte gën na leen ci sax waaye nag benn déedéet waaw maanaam ñëpp ay donga daara lañ léegi da kee mën naa mokkal kee mën naa nanga kii mën naa toolu baasin waaye ki toolu baasin doo ko dal ak ki mokkal ñoom ñëpp ay donga lañ teewul nag kee moo ko raw kon noonu la boo ne yonante bi sallallahu alayhi moo gën a yonante yi waaye teewut am na ay mbokk yonant yonant la am na daraja yonant am na ñeneen ñu am daraja yonant lu mu leen gën-gën kon gis nga du kenn kon mi ngi noonu boo ne malaaka yi ay malaaka asamaan ay asamaan suuf ay suuf garab yàlla lu mu bind rek da caa bind lu bari moom rek mooy kenn moo tax kooku rek la a kennal kon yàlla saa borom subhaanahu wa taala al wuxdaaniya ak wéetal aku kennal moom moo ko yeyoo nee suñ borom nag moo ma musal ci mbooleem lor yi mboolem xeeti lor yi nee naa nag lor bokkut ak yi ngay dégg ñu naan suñ tubaab mas nañ ko def nangam ak yooyu ñoom jëppuwuñ ko ay lor ndax yooyu day yokk seen maqaama ay nattu la yu leen suñ borom di teg boole leen ak seeni noon ngir fas yéene cay yëkkati ay maqaama nattub jullit day yokk ay maqaamaam mbaa muy fari ñaawteef bi sub xiyaamaam sëñ Musaa Ka radiyallahu anhu kon lor dëgg-dëgg mooy lu leen tàqaleeg yàlla ñoom loolu la ñuy tuddee lor te nee na yàlla rek moo ma ci musal wahdahu mu ne suñ borom subhaanahu wa sama diiru jamono moom laay sant moom laay sant ci nafsiya mooy ci wéet ga mu wéet mooy al wujur mooy ci am nga mu am an nafsiya moom la ñu tuddee al wujudu ndax day saxal amok yàlla ci jëmmi boppam moo dañu koy tuddee an nafsiya euh, te yàlla saa borom moo ma wommatal ay mbég yoo xam ne yu ñu gërëm la léegi nag yii weesu yii weesu moom la ñu tuddee asalbiyaat waaw tur yàlla yi dañ koy euh, dañ koy xaaj al wujud mais nga weesu moom la ñu tuddee an nafsiya leen ak alxidam mooy yàlla jiitu ga mu jiitu te daamulewul fenn ak albaqaa mooy des gi muy des te du yem fenn euh, dégg nga wóote gi mu wóotanteeg mbindeef muy almuxaalafa ak doyloo gi mu doyloo mbiru boppam mu di alxiyaamu bi nafsi ak wéet ga mu wéet nekk gi mu nekk kenn mu alwaxdaaniya loolu la juddee asalbiyaat yooyu dañuy teggil yàlla lépp lu yellu ci ñoom asalbiyaat nga jàpp ko kon al wujjoon mais moom lañuy wax an nafsiya yi ci tege nii nag ñoom la ñuy wooyee dégg nga assalbiyaat mooy al wujud al xidam al baqa al muxaalafa al qiyaamu bin nafs ak al waxdaaniya juróom benn lañu juróom benn yooyu la ñuy wooyee assalbiyaat loolu nga jàpp ko léegi nag mu daal di ñëw ci euh, euh, li ñuy tudde almaani li ñu tudde almaani xam àgguñ ca waaye naa la ko teel a wax moo di lan almaani bu ñu ko waxee moo di alxudratu ma limal la ko wal iraadatu lii dan la arrangé ba ci yow mi jàng euh, téere yi euh, lu bari da nga ko gis ci téere xam-xam yi xëy na léeg-léeg mën naa bañ a leer sa bopp waaye dama la koy tënkal ba mu leer almaani ñoom la ñu tudde alxudratu al iraadatu al ilmu al xayaatu al samcu al gis nga juróom-ñaar la juróom-ñaar yi ma la limal moom lañ ci almaani juróom-ñaar yi juróom yi nga xam ne ñooy xare ñooy xare ñooy bàyyikoo ci ñoom ñoom la ñu tuddee almaanawiyaat xam nga boo ne alxudratu qaadir ci lay bàyyikoo al iraadatu murid ci lay bàyyikoo al ilmu aalim al xayaatu xay al samcu sami al basaru basir al kalaamu mutakallim juróom-ñaar yee cee xaroo moom la ñu almaanawiyaat kon loolu jàppal takk-takk boobu moom lay tëjee xasida gi sax mi ngi noonu moo tax ma ne léegi nag juróom-ñaar yi nga xam ne moo njëkk ñu koy tudde almaani mooy xudratu iraad loolu ay melo la te melo day taq ci jëm waaye mënta beru maanaam ak mbaax melokaanu baax kenn mënta ñëw ne daane ak mbaax a ngi nii joxoñ ko nga mën koy teg sa baaram déedéet waaye mbaax ga rek day taq ci nit ñu ne nit kee baax tabe kenn mënta ñëw ne lii mooy tabe waaye nag tabe day dugg ci nit ñu gis nit que mu di ko jëfe ñu ne kii daa kii dafa tabe xonq wala weex du beru kenn mënut a jël ne lii xonq ngi nii faaw ko da nga naan bi daa xonq wala peinture bi daa xonq wala nangam nangam kon melo mooy loo xam ne mënut a beru day taq ci dara ñu ne nangam ba mel na noona yii ay melo la yoo xam ne boo dee xudratu aw melo la iraadatu melo la boo ne xaadir nag ki ko melowoo mooy suñ borom riit ki namm nga da am na lu muy bëgg am lu mu du bëgg li mu bëgg am lu mu bëgg du am ma sha allahu kaana wa ma lam yasha araada bu fekkee bëgg na yaa yàlla day bëgg kon yooya ay kii la ñu bàyyi ci xel kon ñu jàng bay di mu ne wasalati jokk na alxudratu kartan ga wal iraadatu ak nammeel ga lii jëme ci man maa la nga xam ne uxib ba danaa ko bëgg wala ali a aji kawe ja araadahoo namm na ko xakama atte na zul ilmi yàlla may boroom xam wal xayaat tey boroom dund ga bi ma ci loo xam ne yu saf fii dana sellal abadan ba faaw xayaat yi samag dund xaada wa man na ilee jëme ci man sëñ Tuubaa sama déggug yàlla wal basor akuk gisam maa la nga xam ne rumtu sàkk naa ko minal mun naa ci ay mébét ak i xéewal wa durri ci sama lor suri ma daggees na ko wacc xaada wa man na lii jëme ci man dul kalaami boroom wax ja lan la woo mat zikrahu alquranam ja alxakim bay aji xereñe wasaanali te ñongalal na ma maa la nga xam ne raaba fàddu na an kulli xakim walis aji yeewa wala aji xereñ mhm. mi ngi noonu mu ne kartanug yàlla akuk nammeelam ci la yàlla ci la ma yàlla defale mboolem lu ma bëgg te fekk yàlla namu loola xam yàlla mi nga xam ne mooy boroomu xam di boroomu dund moo ma jox ak dund moo ma jox loo xam ne dana sellal sama ak dund déggug suñ boroom akuk gisam moo ma wommatal la ma bëggoon di ko wut te musal ma cat lépp luy xeetu lor suñ borom dagg ko ma dem suñ borom mi nga xam ne mooy borom wax ja moom wommatal téereem bi di alxuraan borom bi defal ma loo xam ne képp ku dul man ump na la waxuma nga di ko am sax waaye ump na la yi nga dégg nag dafa mel ne da nga dégg ñu ne lii ko doomu aadama dana ko am doomu aadama dana am kàttan dana am nammeel dana bëgg dana am xam-xam dana dund dana dégg kon est-ce que ko du kon daa bokk ak lii suñ borom ñu la dee déedéet <laughs> déedéet bu ko def suñ borom ndax lan doomu adama lii mu am lépp du du yëfam yëfi yàlla la yàlla ku mu joxul kàttan doo ko am kon doomu aadama mumul kàttan li moo tax ngay dem ma ba yàgg ngay tële nga dem ba yàgg nga tële doomu aadama amul ak nammeel ndax léeg-léeg mu bëgg dara ba noppi du ko mën a def kon loolu du ak bëgg suñ borom lépp lu mu bëgg day am te mbëggal ko yàlla moo koy def ci xolam doomu aadama bu amee bu amee xam-xam la la la mu umpale bi set mu lu mu xamul te xam-xam boobu sax yàllaa ko ko jox doomu aadama buy dund it dañ ko ko abal rek kon loolu lépp moomu ko yàllaa ko moom kon lii bokkut ak dund bu dee kàttanal suñ borom nag mooy dadu tale dara suñ borom ak mbëggeelam it li muy bëgg iraadaam lépp lu mu bëgg day day day am xam-xam dafa daj kàpp lépp ak dundamit dund la goo xam ne gis nga amul fu muy tàmbali amul fu muy yem amul dee amul dara kon wuti nag doomu aadama kon bokkuñu loolu ak déggam nàngam doomu aadama léeg-léeg mu balaa juddu du dégg léeg mu juddu tàmbalee dégg léeg mu dem ba ay noppam du neexati léeg-léeg mu tëx léeg mu dee kon loola du ak dégg tey dañ ko ko abaloon yépp doomu aadama moomu ko yàllaa ko moom da ko ko abal rek nag gis nga ko jóge na ci loolu nee na madda mu ñëw nag ci al maanawiyaat madda tàllal na li nax wi jëm ci sama wàll qaadirun yàlla kii aji am kàttan muri tey aji nammu ja siran secret boo xam ne bii ci secret boobu lam yen lam yen xu ni du ma jublu mukk almaridu aji féttéerlu ja xafisa wattu na aalimun aji xam ja di yàlla waxayul ak aji dund ja kulliya sama lépp minal makaarihi ca yeñu sib wa ma te baril na kulliya sama lu néew fadaa jot na samiun yàlla ki aji dégg wa basir te aji gis nafsi sama bakkan bi kulli ci képp koo xam ne yu yuhibbu dafa bëgg xaf si sama tëj xablu ci lu njëkkoon wali euh, wala boog wa jasaba te ñoddi na wa jasaba ñoddi na mooy bijj na lii jëmee ci man moom yàlla wala boog wa jasaba bijj na ñoddi na lii jëmee ci man kan moo ñoddi mutakallimun yàlla ki aji wax alkitaaba alquran euh, wali yadi wala boog wan jasaba te mu ñoddeeku te mu dikk moom alquran li yadi ñeel saa loxo fuaadi ak ñeel sama sama xol xilliya sama keruk xéewal daa'imun aji saxla bilaa muaanin ci loolu jenn aji noonu bil maanawiyati ca la ñu tudd al maanawiyati waxoon naa ko mooy xaadir murid euh, mooy xaadir murid ak nangam nangam wa ak ci la ñu tudd al maani loolu leeraloon naa ko nangam nangam leeraloon naa ko dafa wax ne suñ borom mi nga xam ne xaadir la di murid ku am kàttan la ci lépp dégg nga suñ borom moo ma jox secret boo xam ne ci la yàlla jaare ba almarit mooy képp ko lu nar a texee di du ma jublu suñ borom mi nga xam ne mooy aalim di xay moo aar sama lépp ci lépp lu bon fekk la ma yoroon mu néew mu bari ko suñ borom mi nga xam ne mooy sami di basir moo jote sama bakkan ci ña ma yéene woon lu bon mooy ña ma yéene woon lu bon euh, lépp la ma naroon a dal ñooñu suñ borom éliminé leen taman mu dundal ma loolu mooy ak jot loolu mooy ak jot ci ci saa nañ ko mën a xamee fadaa <laughs> daf ma leen a jote moo xam ne ci lu man a doon ni nga xam ne xar yonente yàlla Ibrahima moom mais yàlla joxoon ko dañ koo jote ca Ismaayla moom bëggoon a rey Ismaayla moom dund ñu far rendi xar ma nee na suñ borom mi nga xam mutakallim la moo ma jox alquran alquran yi bi ma ko joxee alquran daal di dikk ci man moo tax yor naa alquran ci sama loxo yor ko ci sama xol sama dënn sama ker sama keru xéewal maanaam xéewal yi ma yàlla defal day sax ba faaw ku ma noonoor tamit da ngay sonn rek loolu nag yàlla mi ma koy defalee ci almaanawiya ak almaani almaani mooy melo ya almaanawiya mooy melo jëmm jëm taq dégg nga la muy doon kon xasiida gaa ngi noonu moom la sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana euh, wax ne moom la sëñ Tuubaa joxoon magum taalibe moom yi mu indi ko ne dana nekk ko képp ko ko mokkal dana nekk seen tontu tontul ñaari malaaka kon nag yàlla nañu yàlla defal pësteef ñu mën koo ñu mën ko kii léegi sëñ xam Mouhamadou mu Diop Dagana nee na moom am na bayit yu mu doon xalaat ci xelam doon ko ràbb nee na wa am maa yi bu dee nag sama bayit yooyee ma doon xalaat falam yaxdur nii teewluwuma ko fi mu toll nii teewul sama teewul sama xel min ci moom illaa mahallu shahidi ndara rek wenn bayit bu ma cee fàttaliku woo xam ne mooy tax ma xam ne moom mi ngi fi lu shahid bu ko arab waxee mahallu shahid day firi bara bu seede waaye li muy tekk rek mooy loo xam ne ci ngay jël référence ci ngay jël référence wakafaata doy na bihi ci moom nee na wenn bayit daal laa ci teewlu nii nii nii tey doy na ma sëkk mooy damaa waxoon yi maada yakunu jawaabi in ata in ataani fi turbatil malakaani baydu yi ca la bokk damaa waxoon ne layta siir yi aka neexoon sama xam aka neexoon ma xam maada ana lan yakunu dana nekk jawaabi sama tont in ataani su ma dikkalee fii turbati ci sama bàmmeel al malakaani ñaari malaaka yi laaj ci bàmmeel waaw cey waay man xaw su ma duggee ci bàmmeel malaaka yi di ma laaj lu may tont man di wax dëgg xaw ma sëñ bi yónnee ko ak xasida gu ñu doo ko defar léegi léegi léegi ci taw bi ne ko ngeen jàng ko loolu mooy nekk seen tontul ñaari malaaka kon lool rek la jublu woon a wax ci nettali bi bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi tey mooy sunu ñetteelu jotaay ci sunu téere bii di alminaxul miskiya fi lxawaarixil mbakkiya li cheikh muhammadul amin Diop dagana radiallahu anhu sëñ muhammadul amin Diop dagana nee na wa minha anni katabtu ilayhi ruqatan fiha dikru xaajatin ruuxaaniyatin kabira wa minha bokk na ci xarbaaxi sëñ Tuubaa bokk na ci ay mayam bokk na ci karaamaam anni naka man Mouhamadou Lamine Diop Dagana day katabtu dama bindoon ilayhi jëm ci sëriñ bi ruqatan aw kayit fiha nekk na ci kayit wi nag dikru xaajatin ruuxaaniyatin tudd soxla soo xam ne soxlas ruu soxla soo xam ne ci wàllu ruu la kabiratin aji mage walam yumkin nii te jëppandiwul ci man dafuha ak jañam ilayhi jëm ci moom sëriñ bi loolu nag haybatan ngir ak wekk gu ëpp fa amsaktuha ma tee kayit wi indi fa man roosidan di aji fuglu di aji xaar fursatan am posé mooy occasion xataa nasituha ba ma far ko wa baada ayaamin ginnaaw ay fan rek daani woona moom sëriñ bi wa araani mu won ma maktuban am mbind yaalamu dana xam allahu yàlla ne annahu naka moom day lam yatruk bàyyiwut mimma ca la nga xam ne fii waraqati nekkoon na sama kayit wa shay an dara fa tadakkartu ma fàttali ko aruqaada kayit wa wa fattastu ma seet anha walis ko fa iza hiya ndekete moom kayit wa fil ma nga ca barab ba alladi ba nga xam ne wadaatuha tegoon naa ko fii ci moom fasdattu ma dolli ko yaqiinan ak kóolute wa alimtu ma xam ne anna hunaalika naka nekk na foofee maa hunaalika la nekk foofee am na ñu bind anna hunaalika maa hunaa li nekk fii walhamdu te cant lillaahi ñeel na yàlla alayhi ca loola nettali bi sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana daf ci lim ci bëgg a leeral mooy sëriñ bi ni ko yàlla maye mel na day xam lu nekk sa xol li nga bëgg te waxoo ko ko da koy xam yàlla da koy xamal loolu jërta weddi ndax yàlla moo koy xam ne moom sëriñ bi xamu ko min tilqaa'i nafsihi yàlla moo ko koy xamal te loolu yàlla yàgg naa jaar ak ay nitam ñu baax ku mel noonu nee dafa mas am benn mu am soxla ci sëriñ bi soxla soo xam ne wàllu ruux la wàllu ruux mooy xay na lu jëm ci wàllu nu muy defaroo wala ay xeeti zikkar wala nangam maanaam du wàllu àdduna moom nag moo xam soxla ma bind ab leetar ngir yónnee ko sëriñ bi waaye nag mënuma koo jox ngir tëy gi ma am ci ma tëy xeetu ragal la waaye du ragal ragal moom mooy ki nga yaakaar ni daf lay lor ni ki nit ni ma ragalee ay gaynde wala ni ma ragalee jaan euh, wala boog nit nga ragal ab ab agresseur boo xam dalay lor koo ragal ga ngay am ci moom tëy nag mooy nit ki da nga koy wormaal ba ëpp maanaam da ngay bañ a ñaawal teggil ci kanamam looloo tax yu bari doo ko nangoo def ci kanamam yu bari doo ko nangoo def mu ne am na lu ma ko bëggoon a wax sax waaye rek ndeysaan xam naa daal ni ma ko war maal daa ëpp ba mënuma ko wax lu mel ne ak xeetu ragal la nee na ma far téye kayit bi denc ko sama sama kër ma ne naa xaar ba am occasion rek boo xam ne dinaa ko ko mën a jébbal ma gaaw ko ko jébbal ñu toog ay fan sëñ bi woolu ma won ma am mbind ndekete yoo mboolem lu ma soxla woon a xam ak lu ma lu ma doon sàkko ci sëriñ bi ndekete moo nekk ci kayit wa maanaam sëñ bi dafa maa tont te man laaju ma ko dara la ma bindoon sama kayit daal ak kayit wa ma woon kayit wa ma woon day tontu la ma bindoon man daanaka bayiwul dara dara dara ca la ma bindoon loolu la yàlla xam na ko ci laa ko fàttalikoo nag kayit wa ma bindoon ba ma delloo kër ga ma seet ko ndekete ma ca barab ba ma ko tegoon ba léegi nga ne ñaari kayit amul dara lu leen wóotale li mu bëggoon a laaj te xaw a amuk tey ci sëriñ ba laaju ko ko sëriñ bi da ko koo tontu. nee na loolu ci laa gën a sama taalibe gën a yokkoo ci laa gën a wóoloo sëriñ bi xam ne kii day ko yàlla di xamal la te xam naa ne daal jaame yàlla yi yàlla may na lam leen may te loolu maa ngi ciy sant yàlla wa bokk na ca xar baax ya an nii naka man de booxa xatoon na sadri sama dënn marratan aw yoon booxa sadri nag boo ko arab waxee li muy jub mooy jaaxle woon naa mooy soxla yi dafa bari woon ci man ba xaw ma nu ma koy faje war tabata te takku rësi sama bopp li siqalima ngir diisug la nga xam ne te xamaltu yenu naa ko mu ne min xawaaiji naasi ci soxla yi nit ñi ilayhi jëm ci sëriñ bi laa aqdiru du ma man ala tabliqaha ci ak jotalam wala ala adami yi du caaginu ci ñàkk jotalam li faxaamati amril mukallifiina ngir rëyu mbirum way togg ya mooy ñi ma ñi nga xam ne ñoo ma yónnee seen maanaam ay kilifa lañ yu mag indi fi man fa xultu ma ne fii naf ci saa bopp faxultu ma wax fii naf ci sama xel rek baytan aw bayt wa kuntu nekkoon naa sax uridu di namm xasidatan ak xasid ak lëmm astafrij yoo xam dinaa sax ko wuññilu allah yàlla bihaa ci bayt yooyu ci xasida googu alxumuma yitteye allati ya nga xam ne allati ya nga xam ne asaabat nii jot na ma walam tatim ma te wal baytu baydu nag mooy taxamaltu amran lastu amliku xaqahu bi axsani wajhin laa yadurru wa yanfau taxamaltu yenu naa amran mbir lastu déet man am liku may man may am xafahu ak sippeem fu ma ko fu ko sippi bi seen waccin ci gën ngaa rafetuk anam laa yaduru wax na du lor wayen foo talee jariñ rek ndeysaan ne dafa am ay jamono daal ma xaw a xat lool ndax yóbbante yi may nit ñi di yóbbante ci sëriñ bi moom moo nekkoon bokkoon na ci ñi gën a jege sëriñ bi loxol ndey jooram waaw bokkoon na ci nit ñi nag dañ may yóbbante ci sëriñ bi neel sëriñ bi nàngam neel sëriñ bi nàngam te sëriñ bi du waxtu nekk lay génn tey bu génnee tamit man bëgguma koo sonal naa ko ñoom diw nee nañ nàngam loolu daal xaw maa diis ci man xaw a diis ba ma am problème mënumaa dem mënumaa dikk ndax ñi nga xam ne ñoo may yónni dañuy ay kilifa yu mag te sëñ bi tamit bëgguma koo déranger nga ne kon mënumaa dem ci sëriñ bi di wax ak moom yenn wax yu bari yi di ko lor wala boog man jàpp naa dama koy lor te ñi ma yónni tamit seen yónneen moom mënu ma koo négliger mënu ma koo ñàkk joxe xam nga kon kooku euh, day xaw a metti mënu ma koo ñàkk wax te mënu ma koo wax ne ndax loolu daal def ma kaa xaw a metti lool ba ma jéem a def ak xasiida sax goo xam ne mujjul àgg aw bayit aw ba aw bayit wii moo ci bopp mooy damaa wax ne man ne maa ngi ñaan yàlla mu wutal ma solution ci sama yitte yu bari yi ma am waaw sama yitte yu bari yi maa ngi ñaan yàlla mu wutal ma ci ab solution daal di wax ne man day yanu naa ay soxla yu bari yoo xam ne xaw ma fu ma koy sippee dañ maa yen a yan ba ma diis te xaw ma fan laay koy sippee liñ ma yen lépp nu may def ba tàqale moom tàqale koo goo xam ne ci gën nga rafetu anam lay doon du ma lor kenn mooy du ma lor sëriñ bi du ma lor ñi ma yónni tamit bañ leen a jotal seen yónneen te du ma sonal sëriñ bi waaye tamit dinaa fexe ba jariñ ñi ma yónni waaye dinaa fexe ba jariñ sëriñ bi ci du ma ko lor nga bayit woo la wax nee na ab xasida laa ci jubloon waaye mujjul àgg bi loolu amee nee na waxumtu ma daal di doxantu ni picc di def bu gisee ndox biiw xawla cheikhi ci wetu sëriñ bi li ilqa li alqaahu ngir ma dajeek moom fii baadiha ci lenn ci ay mbiram ci lenn ci ay soxlaam wala ci eh, lenn ci ay soxlaam ay yitteem wala ci ay wàllam fa isa huwa amut lu moom sëriñ bi yaxtaaju ilayya ndeket daf maa yitte woo fala maa jasawtu ba nga xamee ne boof naa sukk naa bayna yadayhi ci kanamam xaddamtu jiital na naa waaxidatan benn soxla si nafsiyatan buy ko jóg jëmm buy ko jóg jëmm buy ko jóg bakkan fama atmamtuha mottaliwuma ko de xataa xaala ba mu wax ma moom sëriñ bi ne ma uridu ma ne damaa bëggoon an ursila ka ma yónni la ilal fullaaniina jëm ci ñoom diw ak diw bi kaza wa kaza wa kaza ci nangam ak nangam ak nangam wa zakar mu daal di tudd almukallafina ña ma yónni woon ci sëriñ bi tama tama ragal tama ragale ñëw sëriñ bi di ko wax almukallafina way topp ña fa tajarratu ma daal di ñeme nag alayhi ci li may def <clears throat> waxultu ma ne ko fulaanun diw de yaqulu kaza diw de moom moo ne moo ma yónni woon sax de moom de mi ngi naan nangam ak nangam tàmbali di ko leeral fa xaala mu ne haza huwa moom ëllëg si mooy xam ne xultu wax naa ko bi la stationnaire yi ci lu ak settee ndeysaan nee na ma ne xaaral ma jéem doxantu ci wàllu sëriñ bi ba xam ndax bu fekkee daf maa soxla ma mën a dajeek moom ndekete yow sëriñ bi moom soxla na ma ba di yónnee di ma woo ba ma ñëwee ba toog ci kanamam ni ab bi di toogee ci kanamu sëriñam mooy sukk ànd ak yar ba teggin ba bay na yeddeeyi mooy ci kanamam rek bu fiir di ñaari loxoom waaye mooy ci kanamam rek nee na la ma jëkk def mooy wax ko benn soxla boo xam ne xëy na sama soxlas bopp la sama soxlas bopp la di isin ba xam waaye àggaluma sax sëriñ bi ne ma waaw man de dama laa woowoon woon bëgg laa yónne ci diw ak diw ak diw ak diw boo demee nga nga ma leen nangam ak nangam ak nàng ak nàngam li ci yéema mooy së ña ma yónni woon ma ragala ma ragala ñëw sëriñ bi wax ko ko ñoom la ma sëriñ bi tuddalaat <laughs> waaw ñoom la ma sëriñ bi tuddalaat mi ngi mel ne bu fekkoon ne Ibrahima mu Muhammad ak Isa ñoo ko yónni sëriñ bi daa ñëw ne ko man de dama laa am dama la bëggoon yónnee ci Ibrahima ak Moussa ak Isa nga ne kon moom problème moom day daal di réglé ndax ñooñu ñoo ko yónnee boo demee nga nga wax leen nangam ak nangam ak nangam ah nee na ma daal di am ko waaw moo diw moom ngay wax sax day yónni woon na ma doon na wax nangam ak nangam ak nangam sëriñ bi ko waaw sëriñ bi ko waaw loolu mooy li ma la rek boo demee nga wax la ma leen lii lii la ñoom ñëpp boo demee nga ne leen nangam ak nangam ak nangam nee na fa xoorat mu daal di naaw nag alxumuma yittee alxumumu yitte ya ka annaha daa mel ne moom shaaratun ak karaw la nusiat goo xam ne nocc nañ ko dindi nañ ko seppe seppees na ko mais ajji nañ ci ak mooñ wasaara mujj annaasu nit ñi kulluhum képp ci ñoom ka axafi rajulin mu mel ne gën ngaa oye fi waaye indi fi man fa shafahtum ma tuñanteeg ñoom ma ma wax leen wax boo xam ne nga jàkkaarloo ñoom di wax ñu lay delloo ma wax leen rek bi risaalati cheikhi ci yóbbante sëriñ bi wala ubaale te faalewu ma fa kaana nekk na daalika loolee mabdaa ixtijaabihi tàmbalik tëjugam doon tëju fii chaabaan ci fii chaabaana tolsasin ci weeru baraxlul tolsas muy junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent xamsata asara yowman fukki fan ak juróom nee na nag bi ma sëriñ bi waxee loolu ma daal oyof lool njàqare yi ma amoon te doon ñaan yàlla mu teggil ma ko lépp daal di dañ nit ñi nga xam ne dama leen doon xaw a wattandiku ngir su ma leen gisee ñu ne ma waa sama yóbbante moom foo ca toll léegi nag ñoom ñëpp laa ñemee ku ma ca dajal rek wax dëgg yàlla yi fi day oyof lool ci man <coughs> kenn ku nekk maa dem ci moom ne ko sëriñ bi la nga ma yóbbu doon sëriñ bi nee na nàngam ak nàngam te xel nag ci di ci jàq ak nee na lii may nettali soriwut ak bi sëriñ bi di waaj a bàyyi koo sëñ bi ci ay 1920 laata muy dellu ca borom dafa tàmbali nag di tëju di gën di raar nit ñi mais na da doon jàngal nit ñi eh, ni leen eh, bay bu ngeen jéem a muñ ndax balaa yàgg du ngeen ma gisati <coughs> waaw ci saabaanul junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent soriwul 1920 fukki fan ak juróom ndeysaan ne loolu du ko sori wa minha bokk na ci ba tey fii li nga fiy dégg rek mooy euh, sëriñ bi rek ba léegi day tontu lu ñëwagut ndax sëñ Mouhamadou Lamine ñi ko yónni woon di ay kilifa yu màgg ba mu jaaxle ci mënta ñàkk wax seen yóbbante te sëñ bi du noonu du heure bu nekk nga ñëw wax tey moom bëggu da lor sëriñ bi ci ay wax yu bari waaye gis nga sëriñ bi woo ko ne ko ñoom diw ak diw laa la bëgg a yónni te fekk ñooñ ñoo ko yónni woon ku ci nekk mu wax ko la mu koy soxlaa parce que kon foofa tontu na ko comme mbiru leetar bi jàll lool li muy am ci diggante sëriñ bi ak taalibe bari na lool te fi ci biir dana ci leeral yu bari waminahaa bokk na ca kiimaan yàlla defal sëriñ bi anna baada gilmaani naka lenn ci samay gone istamarra dafa saxoon xalaa muxaalafati ci wuuteeg man su ma nee gauche mën a droite wa aksartu ma bari lool allahuma yedd alayhi ci moom wala yu bari tafaaliwut bi kalaami samay wax wa shakawtu ma jàmbat mbiram ila cheikh ci sëriñ bi wa kaana kaanata nekkoon alxulaamu gone gi kat ataani di ma dikkal min indihi bàyyi ko ci sëriñ bi wa xaala lii mu ne ma fa billati hiya ahsan idfa na nga jeñ billati ca wal anam ga nga xam ne hiya moom ahsanu moo gën a rafet wallahu alam fa sakkattu ma daal di noppi ma dal waxal bi ja sama xol ba kat yastafhimu mi nga saa koo dégg an maanal aaya ji ci maanaam aaya ji huna fii sëriñ bi waxe ko fa xaala lii mu ne ma ijtahid na nga farlu fii amri ci mbiram xataa taruddahu ba nga delloo ko ilaa ahlihi jëm ci seen waa kër laa yalxaquka bu mu la yëg mukk min amrihi bàyyi ko ci gone gi malaamatun benn xeetu yeddeel ndeysaan nee na bokk na ci kiimaani sëriñ bi dafa am ci gone yi ma dénkoon gone goo xam ne rek dafa xaw a dëgër bopp waaw lu mu ko digal du ko def di wuuteeg man ma yedd ko waaye faalewu ma li ma koy wax lépp faale wu ma loolu day am ci donga daara yi mi sëriñ bi de ko jàmbat nag naa gone ga joxoon day moom day nangam ak nangam ak nangam sëriñ bi ne ma idfa billati hiya ahsan ma daa di noppi waaye nag maa ngi xalaat naan sëriñ bi aay bi mu tudd fii mu ko tuddee eh, lu ci jublu xaw ma ko sëriñ bi daal may tontuwaat ci xel ne ma naa bëgg a wax ci aay jooju ne la gone gi ba yeboo nga farale ci moom toppatoo ko ba yàlla defal la sutura nga delloo ko ci seen waa kër te benn yeddaa nga du ci am mooy man ko koo dóor wala nga dara dal la ci loo xam ne kat balaa yàgg ay mbokkam ñëw jël si ko nga am ca kersa na nga ca farlu waxasa lii nag bi muy am xubaylal xuru bi nekk na ci njëkk soow jant bi mooy njëkkus soow jant bi mooy li teewoon jant bi sox timis jot booba bariwul wakaanata nekk na bay na naa suñ diggante wa bay na ahlihi ak diggante waa kër gone gi samaniyatun aw sabatu ayyaam juróom-ñett wala juróom-ñaari fan barran ci doxuk jéeri kon sori na falamma soleynaa bi ñu jullee almagriba timis atat nii la ma dikkal baraawataani ñaari leetar waahilatun benn ba ila cheikhi dañ ko adressé mu jëm ci sëriñ bi wa uxra ba ca des ilayya dañ ko jëmee ci man kiltaahuma bu mu ci ñaari mbind yi ñaari leetar yi tatlubul xulaama mi ngi sàkku gone gi wa quduumahu ak ñibbiseem ilayhim jëm ci ñoom aajilan ci lu gaaw <laughs> ci nee na bi may nettali lii sëriñ bi naa ko gone gi de daf maa të fekk na li tee timis jot li tee jant bi so bariwul na nga defar ay mbiram te toppatoo ko yàlla dimbale la ba nga delloo ko ay mbokkam te benn lor wala benn yaraanga doo ko ci am neena na boobu fekk na jant baa ngi waaja a so jant bi so ñu julli timis ba sëlmal rek ñaari leetar ñëw ci man benn bi jëm ci sëriñ benn bi ñëw ci man bu mu ci mën a doon leetar bi mi ngi mi ngi sàkku gone bi naan ko daal gone googu daal su sunu doom jooju lañ bëggoon nga delloo ñu ko ci nu mu gën a gaawe <laughs> ci gën a gaawe ci wa axbartu ma xibaar sëriñ bi fataajaba mu yéemu kasiran lool waxaala mu ne axbartuka waxoon naa la ko de falamma asbaxtu ba ma xëyee rek yassara lillaahu yàlla yombalal na ma jihaasahu ak waajalam xalaa axsani axaalin ci gën gaa rafeti melo fa sahaba mu dem min yawmiha min yawmina ci sunu bis boobee zaalika boobee min yawmina ci sunu bis zaalika boobee walhamdata cant lillaahi ñeel la yàlla bi ma ko nettalee sëriñ bi ne ko ah yow de gone gi ma doon wax léegi bi ñu a julli timis ay mbokkam yónnee nañ fi di ne sëñ bi yéemu lool daane ma man de noonu laa la ko waxe woon ma waxoon naa la ko biñ xëyee yàlla dimbali ma ma waajal gone ki ci gën ngaa rafetewu melo gone gi daal di dellu ci ay mbokkam la ma sëñ bi waxoon awma ci benn nga lépp rafet gis nga lii tamit li muy wane rek mooy gis nga li ko sëriñ bi wax takat ay mbokkam nee na fañ dëkk sori na lool bu fekkoon dañ ko doon dox dañ naan da am ci yoonu juróom-ñetti fan wala juróom-ñaari fan doo ko agsi kon sori nañu nekku ñoom ñu ñoo xam ne kenn day mën a dem ñoom di leen mën a wax dara déedéet mënta nekk kon sëriñ bi dafa mel ne yàlla da koo xamaloon ne ko kii de ay mbokkam balaa yàgg balaa yàgg danañ ko danañ ko jëlsi loola bokk ci karaama yi ko yàlla defal